benn yoon lan mas a def émission. Mhm. tey la ñaar. Mhm. musuma ñaan kenn oto. Mhm. am na ñu may yàgg a dikk oto. sëñ Assane Fall moo ma ko digoon. am na ñuy dem ba naan man daal bu may def lu baax. du jar ma koy wax. sëñ Assane Fall nag wax na ko. def na ko. oto baa nii. ba ñu waxoon oto sport kaat kaat ak yi jox naa la ko di xool bu set bu bëri département bi. Fatou Ndiaye Balawo Fatou Barakallah jërëjëf Ndiaye Balawo ñu rafet ñaan rek Fatou Barakallah. yàlla naa la yàgg jox ay kaat kaat yi. dèjà oto baa ngi nii. kaat oto baa ngi nii macha allah. waaw man nga àggee waaw. dama ne ñaanal ma cat bañ maa topp. cat du la topp te sama bos laa lay jox te bu la ko joxee cat topp la loola moom ma naqari. ak ah! sëñ Touba <laughs> non kon boo bàyyi naa la ko. Ah, kon dama ko ah? ko wax. fii noonu parce que sëñ Touba moom la de. Cheikh ñun zéro kilomètre ko ñu toog la ñuy toog woo nit mu indi ko. te bu koy indi day xëlu. mën naa kon képp yoo xam ne tey ji ku ma ci woo hélicoptère nga jëndal ma ko. kon daal li ma leen di wax mooy ñi ma doon invité Tektal di ci sonn di joxe numéro yi fajar du ma nelaw tey am naa fay ki sëñ Assane